da ngay gis jeune yo xamantene da ngay dem buntu soko Sococim taxaw à partir de 7 h gaay yep genn nañ ngir lan bëgg liggéey mais amuñu liggéey soko Sococim kese doon fi entreprise bo xamantene war na mëna recruter jeune yep lolu mënul nekk makin dañ koy ñaan ngir yalla ak yonente bu fekkente ne dafa bëgg 3e mandat te lima lèr ba lèr moy ko ni mënta nekk parce que duñ ko ko may na jappalé jeune ngir yalla ak yonente bi lolu kessé kessé kessé lañ ko demande jeune départ premièrement ci man dam élève la dama dan jang mais tay ji sama situation kër tax na mënatuma jàngi fen te tey su ma waree jàngi war naa dem lijjanti loo xamante ne xaalis boo xam damay inscrit ndox mi bëri na courant bëri na démb démb laa lay wax nii suñu kër mësuñoo am facture cinquante mille seen oo ñëw doon cent cent quarante huit mille ça c' est trop c' est trop cent quarante huit mille mënuñu ko ci koo xamante ne nii ndoxam guddi lay ñëw nga root mu tëjaat toute la journée ça c' tro